tàyyi nañu ci bakkan yi rot ci manifestation yi rawatina seeni ñooñ ñoom commerçant yi ñun commerçant yi ñàkk nañ ci ay bakkan yu bari ki ci mujj mooy Modou Gueye ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla yàlla xare ko aljana xam nañ ci ñu baree baree bari ñoo xam ne ñenn ñi dañu leen jàppe ci mbedd mi waaye am na ci ñoo xam ne seen biir apartement la ñeen fekk jàpp leen fa mais instant bii nii euh, comme diggante démb ak bët ki démb la mënaguñ leen identifier mais ñu ngi ciy liggéey. looloo waral ñu bëgg ñu bàyyi ñu ñu teg loxo ci ni mu gën a gaawee. kon dañuy exiger moo Gueye mii Omar Thiam. ñu fexe ba leeral ko. waaye ñu fexe ba ndàmpaay leen. ndàmpaay bépp commerçant boo xam ne yàqule na ci ñi nga xam ne dañ leen jàpp ci kaso yi ñu libéré leen automatiquement immédiatement sans condition ñu bëgg itam autorité yi fexe ba aar marché yi ak li ko wër saabu manifestation amee xaar yàlla xolool mbooloo mu fay liggéey association boo xam ne 4000 personnes ña nga fa benn ngoon ñu yàq fa loo xam ne ay centaine de millions la te du féete fenn depuis 2021 ba léegi loolu nag kon ñu ngi wax gouvernement mu gën cee bàyyi xel xam ne économie bi dañu xam ne ci loxo commerçant yii ñuy wax secteur formel informel ci la nekk. seeni bénéfice nag boobu ba léegi ak mi ngi wàññeeku. li ñu expliqué ne actuellement ni suñ chiffre d'affaires wàcc na pile de 60 pour cent kon loolu mooy liggéey liggéey amul ndax loo xam si ne maanaam 100 pour cent presque léegi ñu wax mu dul 30 pour cent ci activité kon loolu laal na économie bi mais du yem foofu rek ndax euh, boo gisee fan yi commerçant yu baree baree bari. Euh, yi surtout ñi nga xam dañuy def dañuy importe seeni conteneurs yu ci bari ñu ngi ci bàyyi ci port bi parce que ñi ma wuñ jël risque di ko génne di taxawal ci mbedd di wàcce ay bagages. ca ndaje ma waa assis woote nañu ngir ñu respecter calendrier républicain bi ngir jàmm mën a sax ci Sénégal.